Euh, madame euh, tey jii da nga nekkoon euh, di former ay jàngalekat yu joge ci école yu tuut tànk yeeg yu xaw a diggu dóomu yi ci wàllu violence basée sur le genre ci milieu scolaire ndax mën nga noo wax rek li nga xam ne lii moom mooy Pastef bi nga xam ne bii war naa am ci mbir moom. waaw donc dañuy d'abord jaajëfal amnistie parce que fii booy xool amnistie moo ko woote. te li mu woote daanaka ñun suñu liggéey la donc partenaire bu ñu ci jàppale dañ ci sant yàlla parce que xool nañu ko état bi mi ngi def ay effort état bi donc mi ngi sonn ci njàngale bi mais boo gisee aujourd'hui violence yi am mooy métital yi nga xam ni xale yi ñu ngi koy daj amaana ci jàngalekat bi lay jóge amaana ci euh, ci euh, donc waajur lay jóge amaana ci li nga xam ne sax ñoom seen biir xale yi ñoo koy def comme ni naan les violences par les pères bu ñu jëlul forme de violence yooyu nga xam ni day am ci yoonu école bi ci biir école bi ci këru ans yenn jàngalekat yi donc buñ ci jëlul ay motuwaay problème bi day euh, continuer donc moo taxoon tey ñun ñu ñëwoon fi en tant que IA mais en tant que formateur pour jéem a yee suñu mbokk jàngalekat yi ni leen que léegi ministre bi génnee na kayit gi nga xam ne jël na dogal que vraiment loolu bu ko amee ci école képp kuy auteur bi képp ki nga xam ni yaa ko def dinañ la punir sévèrement ay daan dina dal sa kaw parce que mënuñu jël xaalis bu am solo di ko def ci éducation booy xool bëgg am ay ressources humaines de qualité ñuy seetaan que effort yooyu yëpp violence di ko anéantir parce que violence kenn mënu ko justifier métital kenn mënu ko justifier parce que enseignant bi warul abuser ci pouvoir pour di métital Euh, élève bi ba nga xam ne te loolu li muy mën a indi vraiment dina dem ba indi na ay abandon scolaire ay xale yi nga xam ne bàyyi nañu école pour loolu waaw menu mesure yooyu nag ministère bi donc yàgg nay am ay charte yàgg na am ay loi li nga xam ne au niveau national ay convention yi nga xam ne dañ ko signé te xam ne ku ne xam ni Sénégal moom bu dee convention day bokk ci ñi koy ratifier mais pour appliquer bi mooy problème donc je pense que aujourd'hui ñun ñoo mën a dimbale ministère bi ñun ñi nga nekk sur le terrain ministère bi mi ngi foofu mais bu fekkee ñun amee ci école bi ñu nëpp nëppal ko trouver un arrangement donc je pense que problème bi daf fii des donc ma ni enseignant yi yii ñuy tàggat tey responsabilité ñoo ko yor parce que ministre bi muy IA buñ ko yëgee dinañu am ay daan mais bu fekkee ci dañ ko nëppal nëppal ci école bi donc lu ñu mën a def it day nax saay. kon da nga jàpp ni ministère baa ngi def li mu war waaye acteurs yi ci terrain bi war na noo def seen kéemtalaay kattan. waaw parce que wax. synergie des actions bu ministre bi tegee ay dogal ni lii ku ko def et cetera mais bu fekkee aussi du ñu remonter les informations donc pour mu mën a jël ay daan day doog problème donc je pense que lu ñuy mën a wax ci suuf lay jóge li ko américain yi di waxee du butab ci suuf la war a jóge problème bi ñu koy régler parce que ku ne xamoon na ni OMD yi 2015 dañu waxoon atteindre ñu ko léegi on se projette vers 2030 donc yii yëpp tey. buñ ko réglé wul surtout problème mu violence bi je pense que du ñu mën a atteindre benn OMD te boobaa ñun enseignants yi nekk ci terrain bi am nañ ci une part de responsabilité. je euh, wax ñu tey euh, li nga xam ne moom moo leen fi dajale. li ñu fi dajale mooy euh, dañoo bëggoon a tàggat ñi ñu fi invité ci li ñuy wax violence basée sur le genre. violence basée sur le genre nag bu ñu koy tekki ci wolof mooy mettital yi ñuy mettital nit ñi parce que dañoo bokk ci ay groupe yoo xam ne dañoo néew doole comme comme comme mun na nekk góor mun na nekk jigéen mun na nekk koo xam ne dafay dem ak euh, laago mun na nekk koo xam ne dafa ñàkk doole euh, wala ay waajuram ñàkk doole loolu la daal ñi nga xam ne daal amuñu doole mettital yi ñu leen di mettital ci école yi loolu moo taxoon ñu dajale fii ay jàngalekat ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy intervenir ci école yi pour tàggat leen ci mettital yooyu ak naka lañ koy fàggoo ak mettital yooyu lu muy jur ci xale bi nga xam ne moom day jàng. Mhm. Euh, euh, maanaam euh, mettital ci fi nga xam ne moom mooy Thiès bi nga xam ne bii fa mhm. yi moom dem na dayoo daal ci li ma la mën a wax. ndax cees Est fi nga xam ne dañuy yëngu dafa nekk quartier boo xam ne quartier bu bees la am na dafa am ay écoles yoo xam ne ay écoles yu bees lañu euh, yi nga xam ne waruñoo am amuñu euh, ngeen baal ma jumtukaay yi ñu war a am yëpp pour aar gone yi ñu mën a jàng ci condition yu yu yu yu mucc ayib am na ci école yoo xam ne amuñu mur comme sama école R102 amul mur ñetti at yi maa ngi fi fu ne yuuxu naa fa école bi amul mur kenn murewu ko am na ci yeneen école yoo xam ne dañoo xaw a wéet ndax quartier bu bees la école yi dañoo xaw a wéet loolu nag moo tax euh, yenn xeetu métital yi di di di xew ci école yi mm-hmm. waaw. Euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo participer euh, mm-hmm. la ñuy xaar li ñuy xaar ci ñoom mooy déjà li ñu fi jàng. bu ñu demee ci seen école yi ñu euh, waxtaane ko ak seen moroomu jàngalekat yi waxtaane ko ak xale yi nga xam ne ñooy ndongo yi ñooy jàng élèves yi ñi nga xam ne ñooy jàng ak aussi ñu def xam nga euh, euh, c'est vrai que moyens yi bëriwul ci école yi wante ku nekk nga def sa kéemtalaayu kàttan ndax nga mën a xeex mettital yooyu mettital yi ñuy def xale yi jigéen yi par exemple mun nañ ko xeex bu fekkente ne dañ leen a wutal ay wanag yoo xam ne bokkawul ak wanagu xale yu góor yi loolu déjà rek ku ko def def nga lu rëy ndax suñu école yi lu ci bëri dañuy yendu école te xam nga xale bu jigéen xëy suba yendu école ba ngoon day xaw a metti ci moom daal te amul fu mu mën a suturloo donc ñu séparé wanag yi def wanagu xale bu góor wa xale yu góor yi def wanagu xale yu jigéen yi ñu aussi jàngalekat yi aussi ñu ñu xawma naka laa kay waxe ñu ñu vigilant ñu vigilant di xool xale yi ñu leen dénk bu baax ndax léeg-léeg métital yooyu dina am entre ñaari élève ñu di leen surveiller bu baax a baax donc mooy vigilance bi ma wax ak tam ñu jàngal leen lan mooy àqu nit lan mooy yelleefu nit fan nga war a yem ak nit loo ko war a def loo ko warul def loolu yëpp ñu jàngal xale yi jàngal jàngalekat yi te ñi nga xam ne ñoo yore établissement yi comme man ñu jàppale élèves yi parce que ressources yi am ci école yi pour élèves yi la ñu def ci benn cadre boo xam ne école yooyu mettital yooyu dina fa mucc waaw nga xam ni ñooy collectivité yëpp mairie am nañ ci wàll. ñoom gaa mairie Thiès Est moom ñu ngi ñuy dimbali dimbali nañ ndax keroog may nañ ñu ay fourniture waane nag boo seetee fourniture yi par rapport ak ñun li ñu am ci ay ndongo. Euh, dafa xaw a néew wante nag euh, ñu ngi leen di jaajëfal ci loolu ñu ñuy dimbale aussi parce que may nañ ñu ñu ñëw toog fii def fi suñu lël waxtaan fi ñu ngi jàppale wante mettital yi aussi dafa am ci yoo xam ne ci koom-koom la jóge famille yoo xam ne dañoo néew doole mënuñoo euh, taxaw seen doom niñ ko war a taxawee ba mu dugg ci école bi yàgg ci école bi réussir ci école bi yooyu ñoom collectivité locale yi comme maire yi Thiès bi ñu nekk comme conseil départemental ndax ñoom ñoo yore euh, benn xeetu jàng bi ñoom tam war nañ ci jàpp inspection d'académie inspection euh, de l'éducation et de la formation ñëpp daal ñoo ci war a jàpp pour ñu jàngal pour ñu dimbali xale yi ndax ñu mën a am seen àq ak seen yelleef mën a jàng bu baax mën a yàgg ci école bi comme ni ma ko waxee dugg ci école bi yàgg ci école bi réussir ci école bi waaw président wu groupe bu ñuy wax Amnesty International donc Amnesty ginnaaw def benn présentation Amnesty Amnesty organisation boo xam ne la mu ngi ci dëkk yi nekk ci àdduna si sëp voilà te euh, dëkk bu nekk am na lu ñuy wax section Euh, section bu nekk am na lu ñuy wax euh, ay am na ay groupe yi nekk ci région yi voilà man maay président wu groupe bu Amnesty euh, fii ci Thiès Est donc tey ñun ñoo dajalee ni ñi ñëpp pour di wax ci benn thème boo xam ne maanaam violence la violence yi nga xam ne xale yi ñu ngi ciy jot ci milieu bi ngay wax ci milieu jàngale bi. Mm-hmm. Mm-hmm. jii ñu nekk ci ci génnee nan waaw formation bi c'est mooy li nga xam ne euh, dañuy ñaan ñëpp suñu naataangoo jàngalekat yi ak ñeneen ñi ñëpp ñu mën a teg ay action yoo xam ne concrète na ci fi ñu jëm voilà maanaam éviter forme de discrimination yi nga xam ne mu ngi am ci école yi xale yi nga xam ne ñu ngi koy daj donc discrimination am na forme yu bari am na ay enfants handicapés am na ci góor ak jigéen am na ci yu bari yooyu la ñuy lutter tey pour que loolu mën a bañ a reñe ñooñu ñu ci ay saafara. Mm-hmm.